bi présidentielle yi ñu doon amal nag tendance yi nga xam ne rek moo ca njëkk a fës jiital na Bassirou Diomaye Faye ci bopp ba le quotidien yëglekaay nag daal di dellu siwaat ci camp wu Amadou Ba ñoom nag ña ngay xam ne ni daal élection yeeg na mu demee boo moytuwulee daañu jàll ci ñaareelu tour bi nag mu yemook Bassirou Diomaye Faye nag candidat yu bëree bëri daal di koy félicité la grande razzia de Bassirou Diomaye Faye loolee la enquête yëglekaay daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk ne Diomaye président nag fi mu toll nii moom rek ngay dégg ndax wone na boppam ci biir Sénégal ak ci di wàcc démb nag fépp ci biir Sénégal di wone seen mbégte rawatina bànneex gi ñu am nag jomaay fay nag mi nga xam ne candidat yu bëri jàpp nañu ne nag moo jël raw gàddu gi ci élection yi nag daat nañ koy félicité Amadou Ba jàppee mbir yi ay manipulation candidat bu majorité bi nag fas yéene àdduna ki tey jii bu mi di jotee lay doon Bassirou Jomaay Fay mooy président bu ñu sukkandikoo ci bés bi la jour plan gagnant bu Ousmane Sonko Amadou Ba nekk ci yoonu defet bu leer Khalifa Ababacar Sall lajju lajju gu métti Idrissa Seck moom nekk ci yoonu jël retraite yéene kaay bi di xaar jamono jamono ji nag passation bi nga xam ne rek war naa dox ci diggante Macky Sall ak Diomaye Faye ndaw ñi nga xam ne rek démb wane nañ seen bopp ci élection yi nag yéenekaay bi dellu siwaat na ci Amadou Ba di xam ne ne nag élection yeeg na mu demee ñaareelu tour mënta ñàkk l'info yëglikaay dellu siwaat ci mobilisation bu am solo bi nga xam ne rek askan wi def nañu ko nag ci watub démb yi nag donte ni amoon na ay jafe-jafe ñu ci nemmeeku waaye terewul nag woote nañ ko ci dal ak salaam Macky Sall ci biir yëglikaay bi ma ngay xam ne ne du benn candidat bu mën a joxe ay résultat waaye bureau de vote yi ci boppam nag ñoo fas yéene waxal seen bopp li ñuy ñaan rek mooy ak candidat bu askan wi mën a tànn rek na doon ki gën ci réew Sénégal Sénégal googee démb ñoom ñëpp wàcc nañ ci mbedd mi nag ngir fësal seenuk mbégte fu ci mel ne ci cité kër góor gi kër Ousmane Sonko jàpp Mermoz ca kër Bassirou Diomaye Faye moom Bassirou Diomaye Diakhar fay cinquième président bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di Les Échos mu yem ak Bokk Yaakaar di fësal seenuk ñàkk ànd ci ndam li nga xam ne rek Bassirou Diomaye am na ko ci premier tour bi Amadou Ba di xam ne ci bi de tey jii nag dana àddu bi mi di jotee yu bëree bëri nag nangu ndam li nga xam ne rek moom la Bassirou Diomaye Faye am ba daal di koy félicité ku ci mel ne Khalifa Sall Déthié Fall Mame Boye Diao Anta Babacar Ngom Mamadou Lamine Diallo professeur Daouda Ndiaye Pape Djibril Fall Serigne Mboup Aly Ngouille Ndiaye Thierno Alassane Sall Malick Gakou ñoom ñëpp nag daal dinañuy accepté ndam li nga xam ne rek Bassirou Diomaye Faye am na ko yër leen yëglekaay bi di libération lu mu ci mënti doon daal élection yi amal nañ ko ci jàmm ak salaam bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di la Soleil président Macky Sall nag ginnaaw ba mu wootee ca ma ngay ñaan kii ñëw ci bopp réew mi gën ci réewu Sénégal ci jamono jooje nag njiital Sénat ma ngay rafetlu daal doxalin gi am ci élection yi nag njiital mission bu CEDEAO moomee itam nag daal di rafetlu itam nag jàmm ak dal bi ñu amalee yile élection rawatina nag ci wàllum leeraange première tendance nag ñii di partisan yu Bassirou Diomaye Faye ñu ngay jubilé waa directoire bu Benno Bokk Yaakaar nag di xam ne ni ñaareelu tour moom mënee su la ñàkk Walf Quotidien dellu soir ci ndam li nga xam ne rek Bassirou Diomaye Faye am na ko ci premier tour mu yem ak bésub anniversaire am waral